entreprise su musique. wallaay da ngay gis ne dafa bëri ay seytaane. waaw ndeysaan. ñuy dund ci monde musique dañ xam loolu xam nañu environnement bu bëri seytaane la ay seytaane yu garaaw ay Ryan Man ay jinne la boo xam ni seytaane la boo xam ni ci musique rek lay nekk. moom moom Ryan Man. Ryan Man rappeurs yi xam nañ ko Ryan Man veut dire pleuvoir tawkat mooy mooy ñi ngay gis ñuy sànni xaalis di gis ay clip. ay clip musique nga gis ñuy balancer xaalis di ko sànni muy taw quoi pleuvoir de l'argent rain man moo tax ñu ko de rain pleuvoir mooy taw boo ci duggee bu jaxasoo yow mën na la apporter xaalis mais daf lay exiger ngay balancer xaalis ngay sànni xaalis maa la ko wax di ko wasaare parce que amener un yeneen objectif une mu ci gis mais dafa am ay jinne yo xamné dañuy liggéey ci musique spécial chef, jinne bu mak bi nga xamné moy liggéey ci tigi moo tudd Euterpe Euterpe Euterpe kooku moom inspirer les musiciens ku ñuy wax terpsichore. moom mooy inspiré fecckat yi. nga ni. fecckat yi terpsichore. kon ñu jinne bi nga xam ni kon am am am na am na ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku leen inspiré ñoom. ala kulli xaal moo leen di excité ñuy fecc xam nga fecckat day fecc parce que parce que bu xul di bëri. maanaam ko mel ni am rab. mel ni ko am rab. xul di bëri mel ni ku am rab ku am ku lu muy gis. boobu instant boobu dafa lu ko dugg. <laughs> day décoller ci jaww ji day mën lu nekk. mais bu paree moom est-ce que sax est-ce que man lii man maa ko man dina xaw a jaaxle man nan laa mënee fecc bi ma fecc nan laa ko mën a xam kon li moo yor musique terpsichore moo yor fecckat yi Calliope moo yor poète yi ay kilifay jinne yu mag lañu leen ak jàmm mbokki yi seen chaîne YouTube islam ak histoire képp ku diine islam intéressé rek ak histoire mu histoire doomu aadama yi mu histoire univers bi comme ni ko le professeur waxee rek l'histoire des êtres humains mooy lépp loo xamante ni si ba yàlla bindee alam bi ak tey ci lu baree bare ci li fa xew ci kaw sunu suuf si ak li nga xam ne xew na ci univers bi. képp ku bëgg a voyager nag dans le passé nag découvrir histoire yu am am solo ak le professeur Madiama Fall muy histoire doomu aadama yi di histoire univers bi da ngay abonné ba si cloche notification bi activer tout bu ko defee vidéo bu ñu dugal rek allah du la raw. donc Ulysse il travaille ci domaine boobu

lay ànd ak son bi placé wu egg fi mu mënuloon egg ci xol ba moo maître Jims. diko wax le son le son wax ko maître jims ni le son ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment na ngeen dem s'il te plaît ngeen tapé la chute maître jims boy xam nañ ko la chute morceau bi wax la chute maître jims dina am texte vidéo bi dina ànd ak texte muy wax limi wax ñu koy bind ngeen déglu attentivement s'il te plaît ngeen xol bu baax limi wax ngir yalla le son ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment est-ce que dinga lolu musa ah, Moussa fen la gentiment moy dama lay fen ci nax fen wu noy fen wu neex fen wu refet mais fen la quand même moy mentir gentiment le son mu le son nekkul lu ay sentiment yo xamni daf leen di fen mais gentiment recourant le cœur ëmb sa xol d'un drap blanc ci mbalam mu weex vous éloignant du monde des vivants sore lak adina si ñiy dund ñiy dund ñi dundé yalla yàlla moy ñi dund leeru yalla moy hum. ñi dundé zikr moy ñi dundé julli ñi toog naan allahumma salli astaghfirullah la ilaha illa allah la ilaha illa allah loolu moy xol yi dundo moy le vivant moy ñuy dund ñi dundatul zikr dañoo dé fa khasat qulubi wallahi wallahi moo yàlla laaj na lolu ni ma alam yax ndax bi zikrillahi tatmain al qulub wallahi alam yahni ndax jotul alam yahni mom la yàlla laaj ma yi ndax jotul nak ñu ko li lazina amanu an tahsha qulubuhum li zikr lahi wa ma nazala min al haq ndax jotul nak ci ñi gëm yàlla seen xol yi toroxlu ci tuddu yàlla ak li wàcc ñoom ci alquran parce que xam nga toujours li may yàlla dafay dafa yàlla dafa muus xam naa su ma ko waxee ñi xamul dinañ ma reetaan <laughs> dañuy waay sa waay yàlla ngay wax dafa muus waaye yàlla kay ñëpp xam nañ muus xam nañ li may wax dégg yàlla dafa muus dafa xam ni su waxee loolu bu subaa di nga gis benn waay taxaw fa ne la non zikr moom mooy alquran yàlla ni déedéet wa ma nazala min alxaq ak li ma wàccee ci ñoom ci dëgg muy alquran uh-huh. kon zikr bi muy wax bokkut ak alquran naan laa ilaha illa allah ألم يحني ندخ جتل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يأكلوا كل الذين أوتوا الكتاب من قبل يبان بل نيغا خامت سي جوخنا لين آه، تيري لو جيتو فخسات مو وو قلوبهم سين خوليا لو تخ سين خولي وو باسكو دونو ذكر يو بري سي نيوم يالا مودين اي فاسخ لا ني مودي نيك اي فاسخون لا ني دا نتي يالا موسى باسكو بوركوا باسكو دونو ذكر لولا يالا واخ ألم يحني ندخ جتل سي جولي ني نك seen xol yi toroxlu toroxlu ci tudd yàlla mooy mag mi nga gis mu toog ci jàkk ji naan laa ilaha illa ba rangoo ñu sotte ko xol bi toroxlu nag ci tudd yàlla waaye waay sëñ bi lii ngir yàlla lii leerul ok ah, leer nañ leer léegi am waaju yeewoo yeewu yoo xam ne day di ko fay bëgg a fexe man manee la la labee la ba génnee la ci yooyu te du la jox dara nasaxal sa diine yàq ko purir ko dindi racine yi xas ko garab gi dee. déjjati reen bi déjjati ren bi. waaw la ko wax. te ku ci sax ci bañ bi tudd yàlla di zikr ci jamono ji ñu toll. Mhm. quatre-vingt-quinze pour cent bala ngaa génn àddina sa iman dem. yal na ci yàlla musal. man maa la wax loolu de. waaw ah, yal na ci yàlla musal. saa waay waay waay sëñ bi man maa la wax loolu njaga moo tax yàlla ni la. Mhm. fa xasat xulubuhum. wallaahi seen xol yow mujj wow. ñu mujj ñoom dañuy mujj nekk ay faasixoon. Mhm. ay faasix la ñu mujj nekk.

voilà du lor du du du. du gaañ voilà. ma ne nekk loo xam boo ko dégloo mu neex te du am benn lor 432 hertz la xam nga dañuy wax ni alaaji jabare euh, Samba Jabare. Samba ah, Samba seet see alaaji Mansour. Mhm. mu toog yow xalam gi ñu ne alaaji Mansour ni Samba juel ma mu jël kora bi joué benn note xalam gi. Mhm. bi mu joué mu déglu ko ba mu eggal mu ne ah. يخرج حي من الميت, الميت والله ويخرج ميت من, من الحي والله ندخ ويبي دا فا دي اه دربي كومبوزي اه دا فا دي اه كي فيل بانت بي بانت بي بانت بي دا فا دي فيل جيغا خا نيم موي موم موم غي موم غني دور دا فا دي دا فا دي تي لو غام تي تي تي تي لو دير ديرو مبت بي نيو ديرو مبت بي نيو امبي ا غامبي غامبي غامبي mbëtt ma dee na gàmb bi ci boppam garab gi dee na bant bi tiige bi génne ci moom def dee na wow na ba dee na caas gi dee na wee wi koy wow sax lu dee na te loolu lépp ci ci luy dund la jógee ci mi ngi génnee waaye mu génnee ci ci luy dund la jógee waaye en même temps mu génnee ci son son nekk luy dund moo sax mu yox lu ji xay mayiti waaye tamit wayu yu mayiti mi naan donc dafay dellu dellu si waat dem dellu si hmm. ala kulli xaal donc musique boobu fekkee ne 432 hertz la nit ki mën na jouer parce souvent du am ci moom benn impact bu négatif waxuma ko araam ak dagan xaw ma ci dara li araam ak dagan nañ ko laaj borom xam-xam yi yokk man xaw ko. loolu mooy ma li may mooy li nga xam ni. Mhm. moo nekk sur les choses que vous voyez. Mhm. donc seytaane nag li kon léegi mën naa infiltrer musique dugg ci biir moo tax mu ne wastaf zis man istata'ta minhum bi sawtika mhm. jilib alayhim bi xaylika wa rajlika jaxasool ak ñoom si yàlla ni seytaane jaxasool ak ñoom wowal say say say euh, nu ñu koy tuddee. say orchestre. Mm-hmm. ay soldats say soldats. xam nga soldaar yi yor ñooñu mooy soldats yi yor yi tëgg yi tëgg clair yi tëgg kii musique bi. Mm-hmm. yi nga xam ne bu ñu taxee di waar gi ñooy sonné quoi bu ñuy waajee attaque ah, attaque waaw dëgg la de. voilà ah, ñooñu lay wax. yow ay bis ko am donc musique la ay soldats musique lañu.

Je suis moy inspirer les musiciens kuy wax terpsichore mom suis inspirer par yi. nga ni kat yi terpsichore. kon ñu Je am am am ku ñuy ku ñuy ku ku leen inspiré par ala Je suis di excité ñuy fecc xam nga par les fecc parce que bu di suis inspiré mel ko am par mel ko am inspiré <laughs> par di mel ko am lu muy gis. instant day décoller ci jaww ji day mën lu nekk mais bu paree moom est-ce que sax est-ce que mën lii mën maa ko mën dina xaw a jaaxle man nan laa mënee fecc bii ma fecc nan laa ko mën a feccee ma ngi xam kon li tax kon ba wax li auteur bi moo yor musique terpsichore moo yor fecckat yi calliope moo yor poète yi ay kilifay jinne yu mag lañ façon fecc bu ne gën def alaaj ala kulli xaal waa ji ma gisoon mu koy lim de ci télé ndax xam nga at waa laa génne na ay xeetu fecc yu bare bare bare mu lay ci gin am na fi caxagul ma la lim macha allah waaye donc nga gis ni yooyu dafa am benn xeetu chéatine yu bare bare bare bare ay millions yoo xam ñuy liggéey ci entreprise musique rek kon donc Iblis jox na important musique xam na import maanaam xam na li mu mën liggéey ci musique mhm. ni muy yàqee xol nit bi ba kooku imaan ak pas-pas dootul mën a dugg ci boobu moo vous bu fekkee nit ki dafay déglu musique na déglu musique 432 hertz vous faites ne mën 432 hertz bu faites déglu musique 432 hertz mais la musique moderne la musique yu yi. 95 ah, 19 c'est c'est 440 hertz. yu Wow. yi. waaw note dañ ko 440 hertz bu ko defee fréquence Il faut yak sa roh. allahu akbar faire dindi pas-pas seytaane daf ciy mën a bu bu eggul du ci mën a ci mën a mais bu eggee daf ciy mën a ànd léegi installé wu ci fa sakk ko. te moom moo koy yokk ba sax ci koy joué du xam ni yokk nañu. Euh, non non ñi koy joué ñoo ko yokk maanaam tey dañoo rek ñi nga xam ñoo yilif musique ci bi xëy daal ne fréquence 440 hertz tax pourquoi maa ngi laaj musiciens ñu ma pourquoi pourquoi ñu yóbbu 440 hertz pourquoi bàyyiwuñ ko 432 hertz xam nga booy seetlu musique bu yàgg ak boo koy ak musique léegi da ngay gis. bokkul waaw waaw niveau bi tonalité bi bokkul. ni ah. ton ni muy ni muy impact bi mu tonalité wu musique bi bokkul. fréquence wu musique bi bokkul. parce que musique démb yi boo koy ak musique tay da ngay gis ne daf lay mo la gëna mëna adoucir mo la gëna mëna ah. stabiliser. waaw moo jeunesse bi déglu musique tay dañuy excité wu dañuy wu dañuy jaxaso dañuy angoissé wu dañuy stressé dañuy mer motax ay fils de frère ni bare motax ay schizophrène yi bare mooy da ngay merte ke ndo def dara sa xol bi tang do xam lu ko waral ngay yu fi di wéq boli yi ba saa nga xawa dal tout mais da ngay da ngay jaxaso da ngay xulli sa bët da ngay stressé tout temps sa xol bi day nakari day metti tout temps do xam lan la fekkoon ne xamoo 440 hertz yooyu moo ko waral téléphone yi mom lay sonné télévision yi mom la ñuy tàkkee objet yëpp mom la dañuy émettre 440 hertz motax nit ñi nek ci ben angoisse ben angoisse bo xamni ne xamuñu cause bi xamuñu source bi lan la ñepp dañuy jaxaso nerveux am angoisse perturbé wu do nek ñu dañ lay balancer avec des ondes sourdes des bruits sourds des ondes sourdes yo xamanteni que si daf lay tànqal te doo ko dégg daf lay tankal te doo ko dégg te doo ko ci donc parce que silencieusement lay gens... motax Jim ne sont que des sentiments qui ne font que mentir gentiment recouvrant les deux cœurs d'un drapeau... d'un drapeau blanc vous éloignant du monde des vivants le monde des vivants. Je me suis très souvent demandé, le Seigneur m'a-t-il détesté Le diable me disait, t'inquiète pas, t'as rien fait, ton cœur c'est parfait. fait me suis ne sais pas le diable me disait t'inquiète pas dit, non bul wax dara suis dit, je me de. Je me ak dit, je daal yàlla je bu suis dit, je me sama xol Je

يتبعون غاوون يتبعون غاوون ألم تر أنهم في كل وادي يحيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والله يحيمون بوب موم انتريسي موي divaguer mooy da ngay wax mel ni ku divaguer ni ñu ko mën a waxee ci wolof mooy ku ku mel ni ku tàqali ko sa sago di wax rek di wax n'importe quoi ñu diw dafa lan dafa am na am na terme waay dafa dafa tës bët dafa tës bët waaw dafa tës bët waaw da ngaa jékki-jékki rek di talalali doon di wax rek n'importe quoi nga wax ko mooy kuy divaguer dafa mel ni ku tës bët

yàlla yorenti bi. alaxira yooyu nekkul dindi naa kiraay boobu maintenant tu vois fekk gisoo da laa lëndëmal. allahu akbar. ceet.